tonda xale yi tonda booy xam nga xale yu xees yooyu rafet rafet bëy bu di ko bëgg dóor mais mënu jógal mu maccal ko maccal ko maccal ko xale bi bu ma demee Kolda bu ko tëddee mu ne ma El Hadj fii la jaar maccal na ma maccal yi neex maccal ma mu ne ma man du yor kooy di ko maccal loolu laa ko wax du ma yor kooy di ma maccal waay <laughs> yow xamoo lu xew ci El Hadj Diouf dafa feebar mënul jógal même bu naanoon kan? am na garab bu ñuy wax boo xam pour ngóore la Viagra mu ne ma bu naanoon paanu Viagra du tax mu jógal El Hadj Diouf gémmiñ gi tooy mu ne gémmiñ buy sëgg ci affaire di màcc ñu lay def war El Hadj Diouf fële gisut gémmiñ gi du fomp du du fomp kii de seetlu wu leen xool leen vidéo bu xo bu fompee fii rek gémmiñ gi lay fomp moo tax booy saan foo ko fekk ñu jigéen la donc nañ continuer l'histoire